sunu jaamu yàlla ñoo ngi dalal mboolem ku fa teew ci turu monsieur le maire de la commune Alaaji Momar Ciss di leen dalal bu baax di leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla sunu borom di leen sant yéen askanu bii nga xamante ni yéen a bokk commune Kër Moussa dafa lu tuuti loo xamante ni. dañu ko bëgg a waxtaane bala noo reer waxtaan wi du dara lu dul sant mbooloo mi mbooloo fi teew yëpp damay wax naan mbooloo mi mbooloo yàlla gërëm la ndax li tax muy mbooloo yàlla gërëm dari mbooloo moo xamante ni wëllëre moo leen fi andi mbooleem ñu toog fii tey kenn ku ne bàyyi sa kër bàyyi soxna bàyyi sa njaboot ñakulo ndogu ñakulo lo terlo ñakulo lo murlo ci sa kër waye ngeen ni Momar sis mo sunu monsieur le maire ñun ñepp dañu ëpp suñu kër dam ji ca mom won ko ni ko sunu kóllëre ak yow tay lañu gëna ñor ànd ba noo doon ak yow demb ak barki demb tay lañu gëna ñor rafet na demb rafet na tey waaye dañu ñaan yàlla ëllëg mu gën a rafet loolu yëg nañu ndax lu niwi rek wane ñu leen di sant ci loolu waaye nag dellu ginnaaw di jaajëfal bu baax monsieur le maire Momar Cissé alaaji Momar jërëjëf yal na nga yàgg yal na la yàlla yàgg a jàppale ci bootaay bi yal na yàlla gën a say ndam dama wax léegi ni bu nu yàlla bëggee noonu bàyyi ak moom mar ndax ay ay baax na dina xam nu dina tax nu xàmmee ki gën saf loxo waaye yaakaar naa ni mboolem ku fi teg rek yëg nga moom mar boo sañoon mu téye bi pour toujours. Ah. loolu day la ko ko may mooy taxawaay. Maintenant, la laa premier mandat deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat des ci dox quoi koy sa y ndax mon il y a mi dañuy gërëm bu baax chef de village waaye Il y dafa am Il y a fekk Il y a chef de village Ablaye ñu ngi yëkkati ngërëm di ko soloxo nga teg ko ci askan wi yëpp wutu ni waaye nu ngi yëkkati ngërëm nag di la ko booleeg chef de village yëpp ndax ñoom nga représenté ñëw ñi nga ànd ak yow ñi ñëwul ñoom nga représenté waaye nag di beral cant ak ngërëm imaam yi ndax dama ni commune bi yëpp a ngi ndax commune bu chef de village ya teewee imaam ya teew notable ya teew jeunesse ba teew femme comme femme jigéen ñi nga xamante ni ñoo yor njaboot ji teew dama ne lu fa dese ci ñëpp teew noonu waaye nag di sant sunu nday jële di yaay Xadi Njaay bu Kër bu nu yëkkatee cant jigéen ñi teg ko sa mat na ndax yow doo militant nday nga yal na nga yàgg boot yal na nga yàgg a jàppale Alaaji Momar foofu toll yaa ngi naan sensibiliser xale yi naan leen dem leen ca Momar di sensibiliser jigéen ñi naan leen dem ca Momar koo mën a waxal wax nga ak moom ngir mu tafu si ci ko jàppale ko Alaaji Momar nee na yëg na loolu nee na mu ngi lay jaajëfal yal na yàlla yàggal sa taxawaay waaye di sant nag Fatou Diop docteur Fatou Diop docteur ah, senegal xam na ko waaye Kër mu saxam na ko Sénégal xam na ko waaye tund wi xam nañu ko ci pas-pasam waaye ci cër bu ko yàlla may te mu bàyyi ko ak askan wi muy jigéenu Alaaji Momar Ciss mii nag di ko guddil di ko bëccëgal di ko doxal loo xamante ni naam ginnaaw moom sax lay doon ngir lu ko dooleel ak lu ko may ndam kon Fatou Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a nekk na Kër Moussa fa jóge fa day dolliwul toor daal da da docteur bi faj na waaye dolliwu fa toor. Modou Mbaye wax na dëgg Fatou la dolli toor day faj waaye du dolli toor du la du dolli toor ginnaaw loolu nag sant nañu ñëpp waaye nag dafa lu tuuti xam nga du ma daw aat bee ko ma a wax du ma daw aat bi moo ko mën a wax ndijaay man na laa jëndalu nag say bàjjan mën na laa tagg waye bu ñu yegg ci dafa gis at bi moy risque dara lu doon moy lan moy ñi nga xamante ni ñoo fi tok toog wara japp la laaji mo mar ci ndax cër bi ko Macky sallu jox dama ni maire bu nekk ya ngay daw di wuti mak waye mo mar di digganteem mak Macky du du palug Macky tax yag na lu 2000 la ñu xamante woon daa ànd ci lu bare bare bare Macky sallu dem bari mo mar ci mo mar tay ci département bu cër kon yaakaar naa ni loo xamante ni moo doy loo googu Macky Sall am ci Momar Ciss ñii di askanam ñoo ko mën a jàppale lañu koy jàppale mooy carte ba falaat falaat monsieur le waaw ah, waaye falaat Macky Sall au mooy Ablaye Faye di chef de village bu Tougni nee na naam manta noppi tey ndax fekke muccul nee na mu ngi leen di nuyu di leen jaari di leen balook Ablaye nee mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nee na nag wolof dafa wax ni boo wawalee mburu di nga tudd dëkk boo déggee ñuy wax nee na boo déggee nag ñu naan wal mburu mi ñuy wax bu mag ñi doon tukki bu njëkk nee bu njëkk bu mag ñi daa tukki fii di ko defar. boo toogee fii di ko defar. képp ku la fekk féete penku. képp ku la féete penku rek. xet koy dugg. xet ga da koy dugg. dafay xam ne. ne kookee day xam ni. kawal mburu moom. kawal mburu moomee. day waaj tukki. a tukki. te kuy tukki. te kuy tukki nag. buñ la laajee foo jëm. buñ la fan nga jëm. daa tudd barab daa joxañ barab. di nga tudd barab ba nga jëm. loolu la nee na loolu la wolof di tuddee. ku wal mburu. tudd dëkk nag. ablay ne mu ngi ni mbooloon mi yeb ne mu ngi ni monsieur le maire El Momar 6 léeg leg bu wax ci moom. nee léeg-léeg bu may wax ci Momar. damay junj rek. na damay junj rek. ndax lu na la ko waral moy lo xamante du ñaar te nek ben bo ci wax. bo cey wax. day melni da ngay wax rek di joxoñ sa bop bari na luma ma bëggoon wax neena bari na luma ma bëggoon wax waye damay junj tuuti rek waaye dama cee junj tuuti rek am rab bu ñu tuddee mbot nee dafa am rab bu ñu tuddee mbot am rab bu ñu tuddee njombar am rab bu ñu tuddee njombar njombar bañ ko waxé ne sétal ci rab ban rab lañ lay bolé nga nga nga nga course ak moom ne ban né njombar sétal ci rab yi ban rab lan lay bolé nga ak mom mu sét nee dafa sét ñom kéwél dañ fi né nee bobu ñom ñoom kéwél fi gaaw lool mu baleen fa. nee ma bàyyi leen fa. ñoom ci la ne fi. ñoom ci la ne fi gaaw lool. mu bàyyi mu bàyyi leen fa. mu ne ma tànnal mbot. mu ne nanu ma tànnal mbot. mu xam ne. nee mu xam ni. bu ñu ne xëpp. bu ñu nee xëpp rek. mbott bu geesoo du ko gis. mbott bu geesoo du ko teg bët. mbokk na ko mbott na ko. nee mbot ni ko. may ma ba bés bii di ñëwaat. may ma daal ba bés bii di ñëwaat. bu ko defee ñu dem rawante. bu def rawante bi. mbotta woo mbokkam mbott nag dal dee dem woo mbokkam yëpp ne dafa ku ma tànn ne man kat dafa am ku ma tànn waaye bëggul la rawanteeg man daf maa bëgg a toroxal waaye bëggul la rawanteeg man daf maa xeeb te bëgg maa toroxal ma bëgg ngir wax ci seen xalaat ne ma bëgg nag loolee yéen samay mbokk ngeen wax ci seen xalaat ñu ne ko mbott mu ne morom ma lay nuru nee na ñu ne ko mbott mu ne daa nuroog morom ma te mbott mbott yi benn la te mbott yëpp benn catégorie lañu nañu wax fan la ñuy déparé nañu wax rek fi ñuy déparé wax fa ñuy arrivé wax fa ñuy arrivé su ko defee bu ko defee rek barab bu ne barab bu ne mbott taxaw ñu bàyyi fa mel ni mbott rek léemu leen léeg-léeg nee na léeg-léeg nag Njombal xool ko bu yàgg. Njombal xool mbott ba yàgg. li ma la naral. mu ne ko ah bilaay mbott li nga xam ne li ma la naral. mbott muñ rek. mbott la di muñ ne patt rek. ne patt rek. ñu wax départ ba nee nu wax départ ba wax arrivé ba wax arrivé ba fekk mbokk yi mbott yi diisoo nanu foog fekk mbott yëpp diisoo nanu ngeen baal ma nee ngeen baal ma kat comme ni ñu toogee comme ni ñu toogee nii rek nga xamante ne ñun nga xam ne ñun nag benn objectif moo ñu fi benn objectif benn objectif rek moo ñu fi boole benn bëgg-bëgg mais moo ñu fi benn bëgg-bëgg rek moo ñu fi boole ndax nit koo xamante bu meree nga mer ndax nit koo xamante bu meree nga mer bu sonne nga sonn bu sonne nga sonn bu ñàkkee nga ñàkk bu ñàkkee nga ñàkk bu amee nga am bu amee nga am ngal la ngal la waay yàlla bu mu sëngeen. yàlla bu nit kooku sëngeen. ba ñu organiser course ba. nee ba ñu organiser course boobee. loolu ñu naan départ coup d'avant. loolu loolu ñu naan joxe nañu coup d'avant yi rek gaa yi tëb. ba dal dee tëb nag ak mot. di di njombar ne feew. di njombar ne fiwu rek. di gestu njombar di gestu mbott rek. dal di jubbantikuwaat. dal di jubbantikuwaat. mu seenaan mbott ci kanamam dina sonn tey. ñoom dina dee. fekk mbott yi waxtaan nañu. fekk mbott yi booba diisoo lan rek. fu mu yàgg rek. fu mu yàgg rek. mbott génn foofu. ba ma fee jaaree mbott génn. maanaam ñu jóge Dakar. mu jóge Dakar maanaam. wut si Elton ba nekk Thiès. wut si burti Thiès rek. njomba daal bu dawee ba sonn bu njomba dawee ba sonn bu geesoo gisaat bu geesoo rek gis mbott ci kanamam ci kanamam ci kanamam rek ba ñu yegg foofu ci audit audit bi ba ñu yegg ci audit ba mu fekkee mbott toog jaaxaan def nii rek ñu bu yàgg daanoo fan la njomba daanoo xam damaa mos a wax benn mag. Ablaye nee na dafa mos a wax benn mag. ma ne ko damay diisoo pour am lu ma def. ma ne ko damay diisoo ngir am lu ma def. ma bañ juum. ma bañ a juum mu ne ma musumaa gis ku diisoo juum. mu mu ne ko musumaa gis mukk kuy diisoo di juum. Babacar loolu la ma wax mu ne Ablaye musumaa gis. ku diisoo nee na Babacar danoon ma Ablaye gis di juum musumaa gis nga ku diisoo. musumaa gis ku diisoo. sa diisoo euh, bañ a dëppoo ak dogal suñu borom. sa diisoo bañ a ak dogal yàlla suñu borom. waaye nga diisoo juum. waaye nga diisoo juum mënul ne. ne. li ñu def nii tey. nee na jotaay bii ñu teew tey jii. diisoo la diisoo la. tàgg boo gis am na nee na tàgg boo gis na dafa jàppal ma diw. ñu ñaan yàlla. ñu ñaan yàlla sunu borom. comme ni ko waxee. comme ni ñu ko waxee sànq. yàlla boo koy ñaan. yàlla boo koy ñaan. mën na xam ne lii nga may ñaan sax bëgguloo ko. man naa xam ne li nga may ñaan sax. gënalu la gënalu la yàlla soppi ko ba mu gënal la yàlla soppi ñaan nga ba mu gënal la sax ba mu gën ci yow li ñu bëgg yàlla defal na ko ci ci ci daraje yonante bi ci barke bi li ñu bëgg jëme ko jàllaa ji Momar Ciss ak président Macky Sall yàlla nu ko yàlla defal ci barke yonante bi daraje yoru màgg yi yal na defal ñu loolu ci monsieur le maire ndax monsieur le maire daf mané luma lu fiy def dane ma luma ma fiy def ah dinaa laaj autorisation nee na dinaa laaj autorisation mané ko déet mënu ma laaj autorisation mané ko man nak tey monsieur le maire mëno ma laaj autorisation nak mënu ma xam nga lutax mënu ma xam nga lan mo taxa maa yilif commune bi maa yilif commune bi waaye léegi nag village bi ku ko yilif way nak yow yaay chef de village bi nak ah. ma ah dina doy waar dina doy waar Yaay yil yaa yilif kilifa gi sànq ma ne ko léegi nag euh, dinaa la bindal euh, autorisation nee na sànq dama ni monsieur le maire dinaa la bindal autorisation waaye dañ ko yóbbu sama kër. waaye nag autorisation ba ñu ko yóbbu sama kër. Baye Malick waaye Ablaye nee na. waaye Malick. nee na El Hadj man damaa sant. Ablaye nee na dafa sant yàlla baax. wolof dafa wax ne ku santul rek xarab. nee na da wolof daf ne ku santul yàlla di nga xarab. te ku xarab war ngaa wax lala tax a xarab. te ku xarab war ngaa wax lala tax a xarab. lu dul dama xarabuma damaa sant. nee na xarabuma damaa sant. kon li ma war a tax sant wax kon li ma war a tax a sant yàlla nag dama koy wax. mbooloo mi fi teew. nee na mi fi teew. yàlla nañ ko fi teewee dëgg di déwén. Ablaye nee na mu ngi ñaan yàlla nañ ko fi teewee déwén. bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué. ku fi indi tiis ak aajo. ku fi indi tiis ak aajo. yàlla na ko yàlla faj. yàlla na ko yàlla faj. suñu bàyyi chef de village du ma wax mbokki chef de village. bàyyi chef de village nee na dama naan suñu bàyyi chef de village yi. te ñoom xam nañu lu tax may. te ñoom xam nañ li tax may wax loolu. ak notable yi fi nekk. ak notable yi fi nekk yëpp. ak ñi nga xamante ne ñoo jàppale monsieur le maire yëpp. ak ñi jàppale alaaji Momar Sis yëpp ci commune bi. yal na yàlla sàmm leen. yal na yàlla sàmm leen. lu ñu ragal yàlla ci yàlla musal. lu ñu ragal yàlla nañu ci yàlla musal. yal nañ ko fekk a yu bare bari. biraama nag. ne biraama lii nu mu tudd lii lii tey nu mu tudd ndogu. lii mooy ndogu. dafa nee na lii mooy ndogu. waaw nanu taaxeer lu tuddi des na mbëstan. mbëstan la ma wax ay xanaa ku xamul mbaa yoroo. mbaa dend ak moom ngay laam-laamee. waaye maire buy joxe ndekkee ko joxe bong bong ku ko am xanaa noonu président tout le Sénégal ñoo la président Macky Sall tànn ngir sa def la la conseil tout le département région de Thiès dee leen wax ay likiteem xoolal la dina tout le mandat Sénégal yaa ko moom doonal maire nga yilifaat maire département région de Thiès yi Momar xanaa ñaar bayi la waaw góor waay ku la xamul dara laaj mbaa mu laaj mbala man mi ànd ak yow di ñoo ne département région de Thiès nag sama doom bi jigéen ji tàcc leen ko Loxo yi ci kaw saaba yaa imam Basirou Diop. nee na mu ngi nuyu imam Basirou Diop. bu Kër Moussa. imam Basirou Diop bu Kër Moussa. bu ma ko rek. nee bu ma nuyoo imam Basirou Diop rek. yóbbaale naa imam yëpp. nee na yóbbaale naa imam yëpp. di nuyu. nee maa ngi nuyu. Baye Mor Gueye. Baye Mor Gueye. chef de village bu Kër musa chef de village bu Kër Moussa. Mor Gueye yóbbaale chef de village yëpp. nuyu sama bàjjanu bopp. nee na maa ngi nuyu it sama bàjjanu bopp. Adja Khady Ndiaye. Adja Khady Ndiaye. bu ma ko nuyoo. nee Adja Khady Ndiaye ko nuyoo. nuyoo naa jigéen ñëpp. nuyu naa jigéen ñëpp. di nuyu Layti Faye Anne. nee na maa ngi nuyu Layti Faye Anne. bu ko nuyoo. bu ma nuyoo Layti nuyu naa. nuyu naa. membre Benno Bokk Yaakaar yëpp. membre Benno Bokk Yaakaar yëpp. di nuyu. nee maa nuyu it. sama première adjointe. sama première adjointe. di maam Fatou di maam su ma ko nuyoo. su ma nuyoo maam Fatou nuyu naa conseil municipal bi yëpp. nuyu naa conseil municipal bi yëpp. donc fanweeri dëkk yeeg juróom-benn yëpp. nee na kon fanweeri dëkk yeeg juróom-benn yëpp. ñoom ñëpp teew ñu fi. ñoom ñëpp teew nañu fi. ñu ngi leen di sant. nee ñu ngi leen di sant. di leen gërëm. ñu ngi leen di gërëm. ndax ñii toog. ndax nee ñii toog. njaay yii ñu dugg. nee na njaga njaay yii ñu dugg. dañu ko luye. dañu ko luye. waaye seen xol yi. waaye nee na seen xol ak seen jëmm yi. ak seen jëmm yi. nit mënu koo luye. nit mënu koo luye. seen bëgg-bëgg. nee na seen bëgg-bëgg. ak seen cofeel. ak seen cofeel. ak seen yaakaar. ak seen yaakaar. moo leen fi indi. rek moo fi indi. wax nañu ko sànq. nee wax nañu ko sànq. dama leen di jéggalu. nee dama leen di jéggalu. ndax weeru koor dafa diis. ndax weeru koor dafa diis. képp koo ci indi rek. képp koo ci indi rek. teg nga ko coono. teg nga ko coono. ndax ñii ñëw nii. nee na ñii ñëw nii. du ndogu moo leen fi indi de. du ndogu moo leen fi indi de. ndax bu ñu nekkoon seen kër. ndax bu ñu nekkoon ca seen i am na ci ñoo xam ne. am na ci ñoo xam ni. la ñuy ndogoo la ñuy ndogoo. moo leen gënal fuuf. moo leen gënal fuuf. li ñu ndogoo fii li ñu ndogoo fii. waaye seen cofeel ci man waaye nee na seen cofeel ci man moo tax ñu muñ loole lépp moo tax ñu muñ loolee lépp ñëw fii ci ñëw fii tey ànd koog man ànd koog man ak waa dëkk bi ak waa dëkk bi kon ñu ngi leen di sant kon nee na ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ñu ngi leen di gërëm eh, di gërëm itam nee na maa ngi gërëm itam waa dëkk bi waa dëkk bii di ni ndax nag ndax nag lii bu melee nii tey. lii tey bu melee nii mu mel. yàlla ak seen jëm. yàlla ak seen jëm ak seen i taxawaay la. ndax ñoom ñoo taxawee lépp. ndax ñoom nag ñoo taxawee lépp. ba mu mel nii. ba mbir mi mel nii mu mel. E, di nuyu itam. ne maa ngi nuyu itam. di sant di gërëm. di sant ak a gërëm. sama waa kër bopp. sama waa këru bopp yi nag. ndax wax nañu ko sànq. ndax nee na sànq wax nañu ko. ñetteelu yoon bi. nee na ñetteelu yoon bi. moom lañu ko def tey jii. moom la ñu def tey jii ci Tuguni. ndax ñaari yoon yu jiitu yi. ndax ñaari yoon yu jiitu yi di daaw ak daaw jéeg. dama ko doon rek nekk def lu reste lu ndaw. nee na dama ko doon def rek ci lu yem rek. ndax xale yii ñoo jëkk a jóg ndax booba xale yii ñoo jëkk a jóg ñi toppa ci sama ginnaaw di ñoom Birama ak ñoom Mamadou Ndiaye Lootoog ñoom ñëpp ñoom Mamadou Ndiaye Lootoog ñoom Birama ñoom ñëpp ak ñoom Ibrahima ak ñoom bëgguma ñoo ñoom Abdourahmane ñoom ñëpp moo manuma leen a benn koor rek nee na benn koor rek ñu ne dañuy ñëw kër ga ndogoo ñu ne dañuy ñëw ca kër ga Thiès ndogoo fa ba ñu ñëwee ne ba ñu ñëwee ci biir néeg la ñu nekk ci biirum néeg la ñu nekkoon daaw ñu defaat ko daaw ñu defaat ko ba ñu ñëwee ba ñu ñëwee ñu ngi ci béréb boo xam ne ñu nga newoon ca balcon ba ca kaw ca béréb boo xam ne balcon boo xam ne lu tuuti la woon te booba balcon ba lu tuuti la ren nag ren jii nag gis ngeen ni mu demee nee na gis na noo bokk gis nii mu demee ñu ñaan yàlla nee nu ñaan yàlla beneen yoon beneen yoon buñ koy defaat déwén condition yi nga xam ne moom la ñu nekk tey condition yi nga xamante ni moom la ñu nekk tey ñu am yu ko gën yàlla na am yu ko gën déwén bu soobee yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla ne loolee la ñuy ñaan yàlla ñuy jéggalu nee na ñu ngi leen di jéggalu ci xat-xat yi ci xat-xat yi ak jotaay yi ni mu mel ak jotaay yi nii mu mel te la ñu yéene woon nee te la yéene woon kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk nga toog toogaay bu yaatu nga toog toogaay bu yaatu xéewalu xéewlu na nga bëggee féexlu ba lépp jeex. ba lépp jeex. nga jóg dellu sa kër nga jóg dellu ca sa kër. loolu ñu ngi ciy jégalu. nee na loolu day mbooloo mi ñu ngi leen ciy jégalu bu baax. beneen bi ci des. nee beneen bi ci des nag. dañuy wax ne tàgge boo gis am na jàppal ma diw. nee dañuy wax nag naan tàgge boo gis am na jàppal ma diw. te ñun. te ñun. dañuy politique. danuy politique nag. ñu nekk ak suñuy kilifa. ñu nekk ak suñuy kilifa. bi ci jiitu. nee ba ca jiitu. mooy le président Macky Sall. mooy le la république Macky liñ ci wax dootuma ci delluwaat. nee na liñ wax ci moom dootuma ci delluwaat. ndax su boobaa. ndax bu boobaa. ña waxoon. ña xëy na mën naa wax loo xam ne. nee xëy na man na ma loo xam ni. day juyoog la ñu wax. day juyoog la wax. te lii ñu wax. te lii ñu wax. mooy li am. mooy li am. waaye ñu ngi koy sant. waaye nee na ñu ngi koy sant. di ko gërëm. di ko gërëm bu baax. ndax nag. ndax nag. moo nu jàppale. moo nu jàppale. ba nu yegg fi nu yegg. ba nu yegg si fii nu yegg si nag tey. di sant di gërëm. nee di sant ak di gërëm nag. koo xam ne. koo xam ne nag. a ah, man defoon naa ne sax balaa heure bii mu yëg. man defoon naan sax balaa heure bii dina yëg si fii si jotaay bi. ndax ndax. daawu ko wuute. daawul wuute jotaay bii. waaye ku ci ne xam na ne. waaye ku ci nekk xam na ni. Eh, président daf si newul woon. président daf fee nekkul woon.

muy nit ku baax nee muy nit ku yàlla baaxal nit ku woyof nit ku woyof nit koo xam ne itam nee nit koo xam ne itam ku xam ku xam yelleefu yelleefu ak àqu doomu aadama ak àqu doomu aadama la ñu ngi dellu di sant ñëpp may leen oo oh, oh. teel te xaar leen tuuti mani xaar leen rek ñu àggali kilifa gàggali ñu jublu ci loolu. waaw xam naa tukkulóor yi ñu may ñu tuuti rek. alaaji Momar nee nanu tukkulóor yi may tuuti ñooy coow <laughs> tukkulóor yi lan la rek. classe ñoom Aïcha daal. nee na classe ñoom Aïcha gi daal. ñu may ñu tuuti rek nan nu may tuuti rek. su ko defee. nee bu ko defee nag. ñuy dellu di sant ñëpp. ñu ngi dellu di santaan ñëpp. tey daal. nee tey jii daal. kàddu gi ñu am. kàddu gi ñu am. mooy kaddu cant. mooy kaddu cant. kaddu kontante. kaddu mbégte la. mbégte la. mbégte la ñu am. kontante la. contentement la ñu am. lii ngeen def tey. ndax lii ngeen def tey. man dey lu rëy la ci man. nee na rëy na ci man ndax feddali wóllare la. ndax feddali wóllare la. feddali wóllare rek ngeen taxawee tey. ku ci ne xam na. te nee ku ci ne xam na. temps ni mu mel léegi. ni temps mel léegi ci jafe. Euh, euh, suñu kilifa gu baax ga. nee na suñu kilifa gu baax ga. Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Almaktoum. yal na yàlla yokk leeram. yàlla yokk leeram. ba muy wax ne. ne ba muy wax ni. crise yi am yëpp. crise yi am yëpp. am na benn crise boo xam ne. am na benn crise boo xam ni. mu ngi ñëw ci kanam. mu ngi ñëw ca kanam. fekk xamuñu woon li. fekk booba xamuñu woon la muy wax. mu ne muy ban crise. nee na mu ne ban crise la. mooy crise du temps. mooy crise u temps. léegi am na. léegi am na temps àgg nañ ca amatul jot. nee na kenn amatul jot. loolu tey. nee loolu nag tey. bu ñu mënee sacrifier bu ñu mënee bu ngeen manee sacrifier seen temps yëpp. ñëw fii ñëw fii. ci ngoon be léegi ci ngoon ba léegi. ànd ceeg ñun ànd ceeg ñun. mënuñu lu dul sant leen nee na mënuñu lu dul sant leen. gërëm leen ak gërëm leen. ku ma tudd. nee na ku ma tudd. ak ku ma tudd ak ku ma tuddul. ndax dañuy wax ni ndax dañuy wax ni. ku lim juum ku lim rek di nga juum. waaye dama ne déedéet. waaye nee na dama ne déedéet. boo limee da ngay fàtte. boo limee da ngay fàtte doo matal. moo tax du ma du ma du ma lim. nee na looloo tax bëgguma lim. maa sant ñëpp. nee maa ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. maa ngi gërëm ñëpp. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla sunu borom. suñu bisu tey jii. suñu bisu tey bi mu nekk ñaata fan ak juróom benn wala juróom-ñaar ci koor gi fukki fan ak juróom-ñaar ah. juróom-ñaar ci koor gi waaw kañ fukk ak juróom-ñaar la tey ci koor gi ëpp naa wàññi mu nekk bis boo xam ne mu nekk nag nee na fukki ak juróom-ñaar nekk bis boo xam ni buy dem buy dem nanu fi ba nanu fi bàyyi. buy ñëwati. buy ñëwati nag. mu fekk nu fi. yal na fi fekkaat. dana mën a taxawal lii ba nu mën a taxawal lii nu taxawal. ñuy ñaan mbooloo mi nag. Eh, le maire nee na mu ngi ñaan nag mbooloo mi. fu waay nekk. fu waay nekk. na fa toog. na nga fa toog bu fa jógee. bu fa jóge bu kenn jóge fi nga toog. ñu indi teraanga yi. ñu ngi waajal teraanga yi di ko indi. ñu reer. ñu reer ba reg. tàggatoo tàggatoo. ñu ngi sant ñëpp. a maire nee na mu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp mu ngi gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala benn mètre carré bokkaale mooy un nii un nii un nii matul li ma taxaw benn nit mënusul musa taxaw wax ni Momar Ciss jël na ko jox ko nit ba jël na ko pour boppam loolu moom mën na ko waxee rajo mën nañ ko wax fu ne yàlla dogal ñu nekk ci conseil conseil bi nga xamante ni bii tey am na majorité moom mécanique mais am na aussi par contre doonte kenn nit la baa ñaar baa ñett ñu farul ak moom mu wax ni képp ku ma lebal lu bon doo fayee ko wala man oomal lu bon lu may fayee nit loolu dafa leer parce que tey moom bu ko yàlla bindee woon mu nekk koo xamante ni bii dafa am xelu di fayantoo ko ba ma kon tey jii nii bari na ñoo xamante ni bii tey xañ na dinañu am yeneen problème yu bokk la yi ñu nekk nii bon nit nag du mu leble du leble baa mu maye lu mu amul moom yàlla moo dogal nii la ko yàlla binde noonu la mel loolu la am tey beneen mbir bi nekk ci moom te ma man ci sédé man ko xam bu la yàlla jigéñeelee ci mom da nga ba dolo ba goreel yi da ngay dem sax ba bëgg fooy ni ka il faut ñu béré parce que possibilité yi ba yalla mal ak bàyyi gi mu lay kii da ngay mujj sa défé ni mom dafa ñàkk fayda tey lolu ci liimaan gu baax la deuxièmement té mu jar li gëna tax may wax ni té ñu war ko gëna comprendre bala may ëgsi ci sante bi moy yalla mo dogal tey si Sénégal Macky Sall mooy njiitu réewu Sénégal neex mu nakari loolu la yàlla dogal monsieur le maire moom transhumé wul dàq parti au pouvoir njiitu réew mi ci boppam moo ko bëggal boppam moo ko ndaxal boppam wax nañu nag bëgg buur buur bëgg la moo ko gën a ëpp moom Macky du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon du ñeenti yoon ay at tey am nañu toog fii seede man bokk naa ci benn yoon ci moom nu mu doon waxtaane di mébét pour moom mu ñëw ànd ak moom liggéey jàppale ko tey loolu c'est pas parce que moom dafa nekk séeréer ba dafa nekk imam ba dafa am ak baax ba dafa nekk oustaz ba dafa mën a joxe xaalis déedéet c'est parce que gis na ni population bu Kër Moussa dem nañu élection mu am ci mom ndam bo xamanteni bi mom ci booba état maire Fatick amuko mu demande élection deuxième fois moy ñaareel mandat yi ngeen di wax ni mu amat la même chose mu demande troisième mu nek lolu kon koku daf ko top ngir mbolo moomu nga xamanteni bi mom la Momar am yalla dogal boole leen ak ñom monsieur le maire di Momar 6 amul payu commune Kër Moussa dama xawa a ñew ñëw naruma won sax wax waye nak dafa am lo xamné su fekkee dafa am babis ba bis am ni tay taw ko fay am lu mu nuru te liñu wax lek ciowli ciowli ciowli li waral ñoko xam ki lu may wax ci mom da dul bari parce que man ak mom xamna man xamna xam nga te sori dafa am sori te jigee dafa am mom xamna man xamna te fa ñuy toog ak fa ñuy daje ak la ñuy waxtaan ci téléphone du keneen koo xam dina xam nga ko dudul action day jot rek moom mu xam ni man maay kan moom man ma xam ni moom mooy kan sànq dafa am lu biraama wax mu ne fii mooy sa place wax na dëgg moom sama goro la budul dul loolu ci aada bàyyi laa ci moom ma yor rakam aussi mais yaakaar ni monsieur le maire mii bi koy wax keroog ministre keroog ci làmb té dina si ñëw pour santé leen rek da parce que bëgguma guddal bi muy tok mère ndjay nga tok mam Fatou nga tok ñu waxante lañu ñu waxante moom dégg na man dégg na té yaakar na ni fi kéro bañu tok fi mu may mu may inscrire pour ma nek tedd listam yaakar na du won tay du daw té lan ci amone gis nañ ko pour ben bu gatt rek référendum yi passé ma ngi yor loxo buy mett defena Birama yoni na la yàgg parce que loo amul seede baaxul mané ko man awuma temps wëruma aussi tam pour di dem ci ay campagne ki def yëpp ma tok mu oo téléphone ma ñëw mu ne ma xamna fi nga toll yëgu mënoon sax dara dala dal mais xamna dama lay libéré mais nak nga dolli ñu ñaan mais nak wóor na Serigne Babacar Sy ni ñaari yoon yi ñu and yëpp nga ne ma togal dañuy gagner dañu gagner mané ko duma campagne mais yaakaar naa su am 200 personnes jox la ko luñ ci doole dinañu dem mun ma kon alhamdulilah du ma génn ma ne demal nga toog loolu yëpp la ma waxoon keroon rek nit day ànd ak mbokkam man Kër Moussa laa dëkk biir Kër Moussa Ndiobenta laa dëkk mais dama ne la ma mu Mounirou dootul Mouniroum Ndiobenta yi du Mouniroum Kër Moussa Mouniroum secteur bi yëpp la dëkk bu ma neex tey ji bu ma fa demee dinañ ma dalal dinaa fa fanaan parce que dafa am lu tax dafa séq dama koo séq ak nit ñi mhm. ah dafa am na benn question rek bu ma leen di posé yéen jàngkat yi dama leen di laaj xaw ma ay mathématiciens ngeen xaw ma cent boo ko multiplier par par deux cent lu mu leen di jox ah cent multiplier par deux cent vingt mille kooku à suivre lay doon ah? waaw à suivre lay doon buñ ci àggee buñ moom dinaa dinaa ko wax moom dina xam man dina loolu wante dañ ma jox cër waaye nee na dañu ma jox cër ndax ñoom wuñu ne. ndax ñoom ni. cumulativement. cumulativement. maa jiite section Kër Moussa. maa jiite section bu Kër Moussa. coordination foot jiite coordination bu jiite département Thiès. jiite it département bu Thiès. kon niñ ma joxe cër fii. kon ni nu ma joxe cër fii. su ma demee Pout noonu lañ ma joxe. bu ma demee Pout la nu ma joxe cër. su ma demee au niveau du département noonu lañ ma joxe. su ma demee it au niveau du département noonu la nu ma joxe cër. kon boog ñi ngi leen di sant ci loolu gis nañ ko ñi leen di sant di leen gërëm. na mu ngi leen di sant ci loolu gis nañu ko mu ngi ciy gërëm. Euh, du sori du ma sori na ci biir wax. nee kàddu du ma ci sori. ndax fan yële ca ginnaaw wala weer yële ca ginnaaw mais fan lii Thomas dama invité woon ma dem fekke eh, seeti ko nee na lii Thomas daf maa invité woon ma dem seeti ko bi may dem maag Mariam bay mais ñoo àndoon bi may dem man ak Mariam bay bële ñoo àndoon bi may dem ab représentant nee na benn représentant bu sukkay sis laa àndaloon it bi ma demee lim ma waxoon nee na ba ma demee lam ma waxoon dama dégg ñu naa parti socialiste ñu seen bopp ci coalition département bi lu ci sa xalaat nee daf ni ma dama dégg di parti socialiste gisuñu seen bopp ci coalition bi. gisuñu seen bopp ci section ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi. gisuñu seen bopp ci coalition bi. ma ne ñu koy wax dañu juum. nee na ma ne ko ñu koy wax. dañuy juum. dañoo juum lool lool lool. dañoo juum lool de. ndax au niveau de Kër Moussa. ndax au niveau de Kër Moussa. li ma ci xam. li ma ci xam.

nee na man nee na man mi ngi yow. président wu APR bu bu seem bu Kër Moussa. nee maay président APR bu seem bu Kër Moussa. mais bi ma demee ba jaaxle. waaye ba ma demee nag ba jaaxle. dama tàllal sama loxo Momar Ciss. nee na dama tàllal nag sama loxo jëmm ji di Alaaji Momar Ciss. ci biir loolu. mais ca biir loolu. seem bu Kër Moussa. seem nekk na lycée bu Kër Moussa. nekk na lycée bu Kër Moussa. kon ñun ñëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm. kon ñun ñëpp Alaaji Momar kon suñu euh, parti socialiste gisuñu seen bopp ci biir. parti boole ci gisuñu seen bopp ci biir bennoo bi dañoo xamul dañoo xamul te laajte te laajte kon ñu ngi leen di sant kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm euh, ba beneen yoon ba beneen yoon lañ bu ñuy nuyoo ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di ñaan ci yàlla yàlla nañu yàlla may ñu teewaat ko déwén teew ko ay déwéni déwén kenn bañ a manqué yàlla nañ ko sunu borom defal yàlla bu mu doon sunu mujjelu gisee di julli ci yonentam bu tedd ba Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa salaam su ma nee Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa salaam il faut que d'abord bala ma commencé wax ñi doon tagg yonent bi ñii toog mooy groupe soppe nabi moom ngeen tudde euh, sang bu tedd bi waaw xaaral ma décorer leen tuuti bala maa avancé. am leen leen yàlla bindal yiw kon. tàcc leen ko waay mbokk yi yi gërëmaate gi dama koy bàyyi ak monsieur maire dina wax après mais damay wax rek lu tuuti loo xam ne lii dafa am solo mooy fo Birama daanale foofu laa bëgg a commencer gis ngeen ñun collectivité locale lañ yor mooy maanaam mairie.

te gis nañu comme ni ko Birame waxee koo xam ne kii daf ñu ne kaay leen jàppale ma ma jàppale leen muy Macky Sall ñu bàyyi li ñu doon def dem ànd ak moom te dinaa ci dellu si li tax ñu ànd ak moom Birame wax na ko ñetti yoon woo nañ ñu ñu ci bari di wax dañoo transhumé dañoo transhumé transhumance dafa am ay façon ndax ku yor collectivité locale bu fekkee ne nar ngaa liggéeyal sa askan di nga xool ku la jàppale. Hmm. électrification d'un village xam ngeen ñaata la. mais kooku budget commune bi antanu ko. excuse-moi antanu ko bañ ñu tàllalee loxo ne kaale ñu liggéey dañoo dem toog déglu lu amul seede neexul Birame wax na ko bu njëkk ba ay ministre lañ ñu booleen ñu ak ñoom Birame yi ñoo àndoon ah. ak ñoom euh, kii ñoo àndoon dem foofu toog wax mbir ma sottiwul ñeenteelu yoon bi kilifa gi di dem mënoon naa dem moom rek mënuma ma liiraal lu amul seere neexul mënuma combaan kaa ñu dem ñu ànd dem toog mais ñun mënoon nañoo def bu ñu xalaatul woon sunu askan mënoon nañoo def comme ñeneen ñi ni ñuy def dem audience nga làqatu ñu jox la li ñu lay jox nga toog ne ne pat mais dañ ko ne monsieur le président ñun de. ba ñuy dem élection local en 2014 bay gagné commune bi dafa am lu bari loo xam ne lii dañ koo diggee mooy li nga xam ne lii nii ñi war nañ koy jël yóbbaale ko. bu doon loo xam ne lii kenn ku ci nekk boo ñibbee am loo mën a nekk donc du ma jeexal nag. du ma jeexal nag ngeen baal ma tuuti du jeexal nag te gërëmuñu. ñi nga xam ne ñii ñoo waral jotaay bu rafet bii